Adji Sarr bi benn oto bu ñuul kukk moo ko fi wàccee léegi mu ñëw ranger bagage am yëpp. daw mu ne leen jël leen li ngeen soxla lépp jël leen ko man nii di wax ak yow maa ngi yor saagu yëreem. wallaahi. man dara xawma luñ ko dikk mais talu dara yëreem da kaa sama jànk bi ñu ngi ko may jóoru yëre beneen fii bi maman. da koo may maman na ko yow say diil duma ko laal parce que sa yére yii duma ko laal parce que mën nga maa takkal. yére yooyu maa ngi ko ranger lépp ma def ko sama néeg ma teg ko. jour boobu noonu ñun dañoo dugg si maag Touré ay saat dugg si biir kër gi na leen gaaw leen man damaa yàkkamti bu mu dugg si biir kër gi maman nee na xamul sax lu muy def jour boobu benn oto bu ñuul kukk moo ñëwaat gaare fii kenn ki maman mi nga xam ne nii moom wuyu ji woon police xàmmee na ku góor ki nga xam ne nii hmm. moom la fekkoon ak Adji si biir tribunal bi si biir kii bi waa gendarmerie ma ne laa romb xale bu góor boobu moo nekkoon si bunt kër gi di dox guddi ak bëccëg bu foogee ne man heure bu ma envoyé message Adji Sarr mu foog ne Sonko mooy ñëw jour boobu noonu dañuy gis xale bu góor bi ci buntu kër gi. parce que benn hmm. jour ko fi deux fois. soo demee laaj ko dina wax ne man dàq naa ko deux fois. fii lay toog moom ñuy wax xaw ma Sidi Ahmed xaw hmm. sama jànk bi maanaam sama fii bi da koo xàmmee bu baax jour bu mu ko fekkee police bi mu toog la dama finaa ma naka naa mu ma kii moom la tonto Ibrahima dàq ko ci buntu kër hmm. ma ko ah mun ma wax waa ma ñaareel ba day wax ak ab euh, kii. aji appel vidéo tout temps. man nak buma démé geussu geussu ci lañ ma wax né ma ki moy Sidi Ahmed. d'accord mais nak togn ma parce que buntu keur jàmbur lo fay def buntu keur jàmbur ko xamné ne place liggéeyukaay la nga fay dem di tong-tong yi di tok ma mu nan ma aju mom wax li ma wax li mais nak togn na ma def togn na ba ci kanam yalla parce que fi nekul fo xamné ni nii. sun liguey rek te duggu na sama kër une heure de matin moom kooku noonu duggu na sama kër une heure de matin. kum kum ànd noonu bis boobu. moog aji saar jour boobu noonu sama jëkkër bi mi ngi si biir néeg bi tëdd bu mu nekkee si biir néeg bi mooy jour bu mu ko euh, kii daaxee ñetti yoon sama jëkkër bi woo ma ne ma fi naa ma nga naa mu ne man de tiit naa ma ne ko lan moo xew mu ne ma man daa benn xale bu góor moom laa fekk si buntu kër gi. Hmm. dàq naa ko trois fois mu bañ gardien bu deret bi dàq na ko trois fois mu bañ. moom daal dafay su bu demee ba fële. dem ci base xajaaku yi lay taxaw su ma duggee si biir kër gi mu kii mën na ko kon nag bu aboo nga bàyyi xel kër gi mën naa am sàcc la. Hmm. mais nekk nekkul sàcc jour boobu waxal la si lu ñu def sama daal jëkkër ji dañoo jël xool ay dàllam takk ko. ak morso bu xonk wallaahi yëngu si kaw wallaahi si kaw bi. jour boobu moom ko ci kii aje ngi jël Sidi Ahmed kooku noonu dugal ko ci biir kër gi muy visite suñu kër xanaa loolu tooñ la. Hmm. parce que kamu ci kër gi jël nañ ay ko takk ko morceau bu xonk ba mu man ma tangal man si téléphone daal yi génn. boobu maa bëgg dem hôpital gisuma samay dàll. ñu jël daal takk ba mu ko si kaw terrasse bi te Sidi Ahmed bu mu duggsee si biir kër gi dafa ak aji dem si kaw terrasse bi sama jëkkër hmm. jóg. ci ay nelaw sama jànk bi jour boobu woo ko téléphone mënu wax téléphone ngir gëmmeentu ma ko yow nga nelaw si wax mama ko ma ne ko comme que Ibrahima mi ngi def tout pour xam pour xam yu defal tout pour xam. Hmm. parce que aji daal de man dépassé na ma fu mu toll ci ci ci leer na Ibrahima ci ci yow la ñuy dellu soit bis bi nga xamante ni mbir yi am na muy le 2 février yow yaa ko yow yaa ko fekkee boo doon mhm. waxaat li nga xamante ni moom nga moom nga dundee woon mbir mi naka la demee woon bis boobu maanaam jour boobu Sonko bi mu doon ñëw fii la ma fekk si biir kër gi hmm. fekk si biir néeg bi hmm. ma toog mu sone bi mu sonewee xale bu jigéen bu tijji aji moo tijji bi mu tijjee mu dugg mu ne ma wax xale bi Sonko moo ñëw ma woo fi naa man ko Sonko de ñëw na mu ne ah mu ne xaar moo aji mu woo aji fekk aji muy jox koo munu kaa jot bi mu wootee annonce bi benn xale bi jël ko mu ne ko ana aji mu ne aji mu ngi ci ruq bi di wuy waa aji nu muy dugalee client bi Sonko si biir cabine bi di dem ci ginnaaw di wuy téléphone dama xool lu muy def moom mu dem si ginnaaw mu fekk aji muy wax naan waa ñëw na nangam nangam xam am na yoo xam ne sam jarul kilifa la Sonko kilifa am na yoo xam ne mm. munu ma ci jaar carrément mm. xale bi jigéen bi ñëw mu woo mu fi woo ko ne ko yow doo leen maase Sonko mu ne ankay ah xaalis dugal ko mu dugal ko mu ne taafinaa su ma paree dafa am naa lu ma la wax finalement doo wax mu ne noonu xaaral ma pare ñu dugal Sonko ah non non beneen xale bu jigéen kii euh, maman d'accord ñu maase Sonko bi ko maase aji ñëw ci fekk ma si biir néeg bi fëgg ma tonton Ira ba ngaa nelaw ma ne ko noonoon mu ne ma xaalis baan mu jot cinquante mille francs jox ma ko mhm. bi ma ko joxee ma ne ko ana Sonko dëgg maa ngi leeral parce que sénégalais yu bëri ñu ne massage kese lu si cinquante mille uti hmm. quatre mai la def massage quatre mai la fii nii boo xoolee affiche bi. 4000 mm-hmm. la 50000 la. d' accord bu fekkee da def massage benn personne. 20000 mm-hmm. francs la une heure de mm-hmm. mais bu fekkee 4000 la massage bi 50000 lañ koy massé. d' accord loolu léegi mu jox ma 50000 léegi 4000 la mu ne 4000 mu fay leen 50000 mu ma si biir na jox mm. dem na mun ne noonoo day sangu. ma ne ko ah mu ne ma ko baax na buy dem nga tëj buntu kër gi mu ne ma amul problème. d'accord bis boobu gisatoo ak jour boobu gisuma ko. Hmm. mais xam naa ñëw na ma moo ñëw te bi mu ñëwee takk dégg naa muy wax kii naan Sonko moo ñëw. bu nag mu xam mu xamee la. d'accord aji mu koy wax xale bu jigéen léegi sonkoo dem bi mu demee aji aji encore mu ñëw ci biir nag fëgg mu. tonton Ira hmm. ma a ko waaw mu ne man lu ma la doon wax dëgg la man ne ko lan mu ne da ëmb bu ma la wax dëgg la ma ne ko ëmb dëgg la mu ne ko waaw ma ko waaw baax na kon de toute façon wóol ko ku la ëmbal mu ne ma génn boobu Sonko dem na ma génn mu dem tijji frigo bi génn ay reer ay eh, eh, reeram gina xam ginaa doon reere temps yoo noonu reeram ñoo résident membre doon jógee mhm. temps yoo résident membre du chaque jour mhm. reeram fa mhm. mu teg reer du de man ko ah yow la de ma romb ko dem ci frigo bi naan ma ñëw mu jox ma benn banaana banaana bi sax naa ko ma dugg si biir nag lekk banaana bi mu toog quelque temps mu ñëw ne tonton Iramam man de damay damay damay ñibbi seen kër man ko ñibbi heure bi parce que vingt trois heures mu ne non sama yaay ne nag kii benn jakarta moom mooy jël man ko jakarta fan lay jaar aji ak heure bi mu ne see kacca mm. lay jógee jour ne see kacca lay jógee mu ne ko see kacca heure yi mm. man ko aji rosanaañ duñ jaay boobu ba ñuy livrer lekk mu ne ankay ah, man waa baax na de toute façon booy dem rek waxu ma tëj buntu bi aji mm. parce que na yow li ngay def man xaw ma ci dara man man si laa si pare ma toog quelque temps finaaw ana aji ma génn si biir ma ne ko gisuma ko ma yëg si kaw fekk ma téléphone dafa am problème iPhone la yoon dafa am problème écoute pour dëgg kooku lu muy wax ma fekk muy nag gaawla nga ñëw jël si ma gaawla dem na bu yàgg man ne ko aji ñaan ñee jël si xanaa kooku ñëwul ba tey mënu ma ñëwul ma ne ko yow looy nekk fii di yëg di wàcc gi ngi yaa ngi dran ni nii de am na ku mu doon xaar am na ku muy xaar d'accord léegi ma toog toog sama jabar yu woo ma nag aji dem na mën ko dem mun a fexeel nag aji buy dem nanga xam ba xam jakarta moo koy jëli wala lan moo koy jël ma ne ko amu problème hmm. ma toog toog ba zéro heure ngi si si biir kër gi di yëg si kaw di wàcc waxuma ko dara ma jég ja muy naan kii maa ngi dem ñëw nañ ma génn ndànk gis nga boo am na benn oto buy gaare fii hmm. ma taxaw si ginnaaw oto bi aj génn xale bi jigéen gunge ko fii aji génn kat kat moo taxaw angle bi fële la taxaw aji ñëw ñaar ñaari góor la ñoom ñett lañ kenn ki mooy dawal mais ñaari góor ñoom taxaw nañ ci oto bi wéeru oto bi di di ko xaar waaw di ko xaar aji ñëw dugg digg bi lu dugg kenn ki ñu seex ko ci digg bi ci am d'accord exactement nii de la demee. d' kon comme ni ko Ibrahima leeralee bis boobu noonu noonu la demee xam soxna Ndeye Khady dañuy ñëw ci beneen wàll bi nga xamante ni yow dal na ci wàllu ay jafe-jafe ndax xam ni bi nga amee tout tànk ak léegi yàggul te suñ borom def ni daanaka matul prématuré la. métti yooyu noonu ci jamono yooyu noonu naka nga ko naka nga ko dindi woon également. parce que métti na sama côté trop. parce que nga ëmb 7 mois sa doom juddu te si biir 7 mois yooyu avant ngay accoucher da ngaa feebar ba sonn. ñu entrés ma hôpital Gaspard Camara parce que ay 15 jours. Mhm. ma nekk fa man may accouché maa ngi Gaspard Camara. d'accord bi ma amee doom sama doom bi amul fi ñu ko dugal foofu weer ñu yóbbu ko hôpital Fann ma sonn trop nekk di jaabante dem ak a après lii à waar sama kaw te bu ko yóbbu hôpital euh, journée bi fay cinquante mille. Mhm. loolu lan moo ko gën a bi un million loolu ma dem wat fof liggéeyo instant bi suñu liggéey amuñ fit pour liggéey parce que téléphone fixe bi mom la talon. téléphone fixe bi bu také ay menace de mort la ci dégg. wallahi ay ay nit di wo dina wallahi dama day xadi ndjay manako wa ko ma bu abo nga. programme bo génnee ñu dagg sa bopp wallahi instant bi bu ma génné hôpital ba légui ñi ma taxaw ci buntu kër dédé déedéet. ngi am ay soxla yu ma wara doxé doxee lan mo gëna metti te am na client yoo xam ne dañ may woo man leer na ma ne ñii duñ ay nekkuñ ay client parce que korok am na ko ma woo si fixe bi ne ma man man Europe laa jógee temps yi laa ñëw xam nga ko waxut ak daf nit njaay lay waxal uh-huh. Europe laa jógee temps laa ñëw bëgg jaar sama maayin bi jaar naa ma bëgg a ñëw nga defal ma lu neex ma ne ko sëñ bi mu ne ma naa man ne ko fii ay nit yu baax ñoo fi nekk surtout maa man nga xam ne 2008 laa dem màkk 2008 boo ko génnee samay at lan moo ci des wallaahi 2008 laa dem laal kaaba comme benn su sama koy rus samay doom damaa yor ay doom mais lépp lu ma nit waxal bàyyil la ak yàlla suñu borom bi. yaa ngi wax ci ci diisaayu mbir mi ak ni mu fi wala mu fi ñu nekk nii dañ koo loué. da da ngeen di fay par. dañuy fay par fin du mois te weer bii sax dañ koo fay. ñaata la toll li ngeen war fay. fii ñu fi fay par fay par fin du mois. te jamono ji li liggéey. te jamono ji liggéey bi kër gi. ñu toog parce que amuñ fitu liggéey. parce tey boo liggéeyee lu ne mën la see fekk. noonu mm-hmm. laa créer quoi lu la see fekk. xam xam naa fi ñuy fi ñuy jeexale mooy ndegam ndegam boobaak léegi déggante ngeen ak Adji Sarr. non non. Adji wax dëgg fi la xam ne fi mu nekk. Adji Sarr non léegi. Hmm. dégguñ ko gisuñ ko.